Yenegitelu, Sensen, Rumi sen TV. dal mi ak jàmm ginnaaw combat bi nga xamee ni moo dox ci uh, diggante uh, Balla Gaye 2 ak ki nga xamee ne moom mooy nag uh, tombé won ak tay ji 21 juillet atum 2024 euh, bi lé combat nak mu melné kassab bi dal dinañ nak kon fess del ci nak lam di met dox ci digënté tafatine ak ki nga xamé nak mom moy euh, Balla Gaye 2 kon euh, fi ñi wax ak yeen yi mom Balla Gaye mom mo dal di jël ndam li mo daan ki nga xamé rek mom moy tafatine mu doon ñaaral yoon bo xamé né mi ngi koy nak bëril moko tafatine kon nak 2-0 dal la ko Balla Gaye 2 daan mu doon loo xam ne ni ki tey jii kon ñu bari ca waa Guédiawaye daal jamono yi ña ngay kontaan ci seen mbër boobu nga xam ne mooy euh, Balla Gaye mu mel na jamono yi jàpp nañ ne rek ci ay tolof tolof la nekk waaye kon tey ji daal dinay am victoire diggante mag ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine tey jii ci arène nationale moom euh, Lion de Guédiawaye